comme Mourian je suis man ça m'a un peu mais bon boo xoolee chronologie événement yi aussi man lu ma est-ce qu'il a est-ce que la démission ak actée d'abord il a demandé à être démis. déchargé mais man lu ma njëkk étonné c'est c'est une lettre privée c'est un message privé qu'il a adressé au président comment. ça fait que ce message privé se retrouve dans tous les groupes WhatsApp des réseaux sociaux xam nga loolu aussi ça fait un peu désordre après mu am mun naa une personne autorisée en l'occurrence le troisième vice-président de la fédération attaque ko ouvertement via un post Facebook ne ko je sais pas mun naa ñu bari lire nañ post bi ñu ne ci groupe WhatsApp bi oh non il a parlé de la fédération waxul ni ma rendre compte à la fédération fédération ba léegi communiqué wul bu ñu jógee euh, si kii bi y a eu beaucoup de bruit mais yaa a jamais eu de communication officielle lu ñuy am yëpp si groupe WhatsApp lañ koy jëlee si tweet y a Sekou aussi seen seen seen naataango bu def benn tweet xam nga y la le poste Euh, euh, Instagram de la fille boo xam ne aussi retiré na ko les gens veulent savoir ce qui se passe réellement il pas de communication officielle dañuy for rek man personnellement am na am naa sumay idée am naa sumay idée parce que man je me dis que Tafa toujours été contre le communisme je lui ai dit ça en face je dis que Tafa mënut a ñàkk am rôle dans le basket sénégalais vu l'expérience qu'il a emmagasinée et il a investi sur lui l'État a investi sur lui ba mu nekk ci niveau bii te quoi qu'on puisse dire aussi euh, l'été 2021 il y avait de la déception mm-hmm. mais été bi mun ñu wax ni am na déception on revient d'un afro-basket avec une médaille d'argent de, de des Jeux de la francophonie avec une médaille d'or les garçons ñoo ngi dem fii gisuma vraiment lan moo benn échec c'est vrai que y a eu des des euh, euh, gestes at kii geste bu mu am at euh, l'autre la fat puy parce que loolu léegi les gens n'en parlent pas mais mënuma imaginer post siara Instagram boo xam ne retiré na ko mu ñëw bugg déstabiliser tout un basket ça veut dire que ya a des choses qui se qui se sont passées yoo xam ne nit ñi amuñu ko wala y un dessin inavoué boo xam ne même balaa ñoo doon dem campagne la wala bu mu ñëwee aussi la fédération aussi n'a pas été solidaire vis-à-vis de Tapha. comment. non parce que pour man nañu toog boobu ba léegi moom moo def ñaari gis naa ko mu si ñaari tele yoo xam ne moom gën na wax mais gisuma benn membre fédération wala benn communication fédération wala benn communiqué fédération boo xam ne sax. au moins wax na un peu sur cette situation